jungle waaw di wax ne comme luñ ko nemmeekoo rek li nga xam ne moom moo état d'urgence nga xam ne njiitu ak yéen ci li nga xam ne rek appliqué bi nga xam ne wax nañ ko ñu commencé ko yaakaar naa suma jubul mars bi ci jamono ji tembe mu gis nag yenn yi nga xam ne rek ak ki nga xam ne moom moo di euh, ministère de l'intérieur ak ministère de transport terrestre moom mi nga xam ne jël na ndogal wax ne ñi nga xam ne ñoo jëm ci wàllum transport bi nañu wàññi euh, yenn ci oto yi nga xam ne danoon yëpp lu mat ci ay 72 personnes ba 32 personnes yooyu mu leen ngir euh, fu ñu a yem loolu jur jàngoro bu réyee ndax eh, bu réeree ndax li mu juree jàngoro mooy kat eh, ñi nga xam ne ñoo di ay Mbàkke Touba ndax ñëpp xam nañ ne diggante Mbàkke ak Touba Mbàkke ñoo koy daw lu bëree bëri tey nag dañoo nemmeeku ne Mbàkke Touba yi ci bëri daw ñu dañoo daal di li nga xam ne moom moo di six personnes yi nga xam ne rek wax nañ leen ko ngir ñu yàpp ko seen oto ñoom nee na loolu mënuñu ko ba tax ñoom daal nañoo eh, taxawandi mu fi nemmeeku rek moom mooy ay charrette yi nga xam ne moom mooy daw di yóbbu nit ñi nga xam ne tey jii wala ñi nga xam ne ñoo jógee Touba di dem Mbàkke loolu nag mu nekk lu doy waaye lépp lépp rek day delluwaat ci ndigal ak dégg ndigal ndax bu fekkee loolu tamit day xaw a métti ci benn askan bi tamit xëy na bañ na taw nga xam ne moom moo di covid 19 ngir li nga xam ne rek moom moo di confinement bi ak li nga xam ne tey ji moom mooy bañ a wàllante gi tax ne nañ jël ay mesures yu sévères jëmale li nga xam ne moom jëm ci wàllum dikk bi ak dem bi ndax bu ngeen xoolee li nga xam ne sax euh, transport bi nga xam ne ay transport commun la wala transport transport daat rek lépp rek nga xam ne moom loolu nag alaaji ñoom tax tey moo tax ñu ñëw fii ci euh, fii ci rond-point Mbacké bi ndax ñu ngi at euh, ñu ngi ji tembe bi nga xam ne moom moo séparé diggante Mbacké ak Touba ngir kat ñi nga xam ne ñoo di ay Mbacké Touba ay chauffeur Mbacké Touba waxoon dañoo dañoo dañuy grève waaye ñoom tamit dañuy yënga-yëngal ba tax tey ñu ñëwoon fii ngir nemmeeku waaye dafa mel ne commune baa ngi ñu yàqaaru ah, gisaguñ fi kenn ku ah, kenn ku yëngal ñun daal li ñu nemmeeku mooy daal kenn dematul fenn ah, benn mbàkki Tuubaa dawatul kenn doxatul fenn kon alaaji fëj metti na lool ci ci ndax boo xoolee ñun daanaka dañoo tàmm dox à partir de de trois heures du matin sax kon buñu ne bu ñu jiituree boo jëlee ndogal ministre de l'intérieur fekk si ku nekk toog sa kër dana metti lool barki démb nag gis nañ ñi nga xam xam ne ñenn ci ay policiers jàpp ay doomu aadama dóor leen dóor metti loolu rafet lawuñ ko waaye nag dañuy xam ne lépp day delloo si wàcc li nga xam ne moom moo di ndogal bi nga xam ne moom moo di covid moo ko waral euh, wax dëgg yàlla couvre-feu bi ku ci nekk mën nga caa mucc na ca mën a muccee mooy euh, diggante 6 heures du ba 20 heures yaakaar naa lépp lu waay di lijjanti lépp lu waay bëgg a def mën nga ko gaaw daal di def dem toog sa kër mel na man day génn di xool ndax loi bi ñu wax dañ ko ak dañ ko appliqué wala nu wii ou non moo tax ñu si bëri daal dóor nañ leen wax dëgg yàlla ñu ngi massiwu nag képp koo xam ne gaañu nga ci képp koo xam ne dóor nga ci waaye loolu leçon la pour man pour ñëpp mën cee jaare jànge ci Alaaji Mbay